Sindia lu tax na wànq di dox noor. waaye gis nga de <laughs> bés bee ko laaj rek. ki ngeen indi. obali lañ ànd. nga indi obali. muy sa frère. yéen ñaar ku ci nekk xam na li nga xamante ni séq ngeen ko yéen ñaar. tey muy bëre combat bu rëy diggante ak Pape Yékini nan ngeen ko waajee ak nan la fas yéene bëree combat. waaye ànd ak suñu mbokk yi rek. ak waa parcelle mbooloo yëpp. waa di ñaan yalla suñu borom may ñu ndam rek. dina du yomb moom. parce que ay ñaar naataango lañ képp ku yaakaar ne dina yomb ci yow rek yaa ngi sa bopp mais ñoo ngi ñaan yàlla moom yàlla may ñu ndam. boo ko doon conseillé ci xeex wàllu wala bëre fan la mën a continuer ba gagné combat. en tout cas daal li ko war a conseillé moom conseillé nañ ko depuis kër ga instant bi moom amatul luñ koy wax waaw. ana mu toll. waaw maa ngi nii rek instant bi moom am na ñu ma jox eh, jot a jox mais ñooñ delloo nañ avance bi ku ci mel ni euh, benn melo bu xaw ma yoofu la ak Solomon Solomon men fan yii fan yii mu ngi wàcc gaal eh, waaw. moom dem la mujjee delloo affaire bi. instant bi moom maa ngi fii di déglu gars yi yaa ma gën a xam. gis nga gars yi bëgguñu nga jeex toll gis nga ne pourtant ni ma toll nii ci wàññi poids laa nekk nii. bi ma moom ba léegi wàññi poids laa nekk ah. parce que si préparation eh, équipe nationale lañ nekk moo tax dama nekk di wàññi poids nii. waaw li du dara lii moom du dara état bi moom du ci dara. am problème.